waaye li ma ci gën a ñor tey mooy football bi bokk yi football bi mag wax na ci ndaw wax ci góor wax ci jigéen wax ci kilifa wax ci kuñ yilif wax ci te fekk liñ ciy wax amul benn njariñ football bi bokk yi li tax ma ne nañ ko waxtaanee ba ca jëkk mooy Serigne Touba araam araamal na ko fi fi Touba benn ñaareel bi football bi saa bu ñu cay jëm dinañ jël ci alali Sénégal yépp jël ci alali murid yi nga xam ne dañ koy tere ci seen dëkk karahan awat bu leen neexee bu leen naqare def ko ci football bi ren bi ñuy dem ñaari milliards lañu wax ne yóbbaale nañ ko ci xaalis kenn ku nekk ci ña demoon ñaar fukk yi ak ñett kenn ku nekk néeg ba ngay fanaan di ca yenn daañu la ca fayal juróom benn fukki junni bis bu sat ki ñu wax ne moo leen doon tàggat ñaari at yi fi def jox nañ ko juróomi téeméeri million te moo na ñoom day suñ bi bokk yi euh, saa su jotee dañ ciy wane ñàkk jom gu sëkk ñàkk jom gu sëkk ña fay daje ñépp ñu ciy gën le lu ñu nekk ñu ciy gën fu ñu dëkk ñu ciy gën lu ñuy lekk ñoom lañ ciy gën a diglu gën a bari ba noppi ñu bàyyi ci réew mi ay ñaankat yoo xam ne sa am na si ñoo xam ne bu ñu tàllalee ne ya allah ya rab mën naa nangu waaye déedéet dañ ne lool du pas-pas bu wér yaa rab du pas-pas bu wér waaye xaalis bi ñuy génneel ñoo ñay di fa dem wàllu njabarkat da ci am wàll ak jabar nangami million la ñuy jël jox ko jabar yi suñ demee nag doy loolu leen jabar bay wax booy dafa gisaanekat yi te moo ne équipe bi ak li ëpp ci ñi nga xam ne ñoo ko yor ay jullit lañ mën nañoo doon sax ay murit ñee bala am na mooy doon ay murit waaye nañ daal ñaan mu nangu léegi moom nekkatut ci loxo yi ñu gëm yàlla nekk ci loxo yi jaamakatu yàlla yi ci yaa rabb yaa rabb yu dul jeex waaye faw ñu dem ci koo xam ne bala ñoo dem ba xam dañuy dana baa xam déet dañuy dem ca moom ne nu muy demee mu xool xool ne dana baax de kooku it ba mu ko dalee wax ak léegi mu ngi ko tàmbalee woon wax ci benn nawet boo xam ne fi la fekkoon alaji baaro mu ne ndox du am alaji baaro ne ah man ndox mi mi ma gis man jaaxal na ma su fekkee du am boobu ba tey bala ñoo dem fenn wala ñu def dara dañuy dem ne ko waaw léegi daal dañoo bëgg nga wax ji ba xam dana baaxam nit mu ne day baax ndax ñoo waxatut ak ñoom waaye xaalis bi mu yor mooy wax ak ñoom léegi xaalis bi ko jox mooy wax xaalis day wax xaalis day wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi xaalis bi naan ay waj dimbali leen bu leen ma jox bu leen ma dugal ci loxoy ab jabarkat dem leen seeti jàngale katub alquran dem leen seeti jaamu katub yalla dem leen jangale ko xasidi ngeen jox waye waaye bokk yi bu limi teural nga dana bax ñu dem mu gëna mu dem ñu gëna ban mu dem mu gëna ban mu dem ñu gëna ban amna ci sax ño xamne nenañ won man dégg naa ko saw nopp mu ne su fekkee demuñu jël ndam la moom xàcc na ci nangam ak nangam jëm nekkoon ndax liñ yor kenn yoru ko waaye nag su fekkee dañuy dem ne yàlla nañ ko bàyyi fii Sénégal mu xaar ñu fi foofu ñu dem moom yàlla nekk fu moom ay jabara fa nekk loolu itam jàkk ji am na lu mu ci war a wax gannaaw sëriñ bi na woon déet déet lay doon ba faw am na ajjuma joo xam ne 2002 euh, ci la France gagné woon Sénégal Serigne Saliou Mbacké radiyallahu euh, dégg coow li ci yor-yor bi ne ana xew ba dëkk bi xumbe nii ñu ne ko gono yi wane seen mbégte day la mu ne mbégte ma mbégteem lu mu mu ne xanaa sant ñu ne ko xanaa sant sëñ bi rek. mu ne at moma bis boobee di ajjuma jumaay toba ji wet na lool ak ñi ci daan julli si ndax dëkk boo dem ndaw ya ñoo cay gën a bari te ndaw ya bisub karok dañoo teeloon a yewu lool dagg seeni nelaw benn ba jongante ba jeexee am nañ ndam lañ bëggoon talatuñ talatuñ julli ci ajjuma waaye ñu wër mbedd di fecc ak a feet waaye am na yor boo xam ne it yàlla moo yabal mbokkum jullit turki kero kenn ajut waaye yàlla moo yabal suñu mbokkum jullit ne demal wanal ma ñee aw yoon du leen booleeku bu yéefar leen booleek ab nasara du ma leen booleeku bu jahud waaye seen mbokkum jullit laa leen di booleel ñu boole ñoo waa turki waa turki ko si gis am sëgg am siggi lagg la moo xam ne mën na ub làmb sawar lool kuñ ci wéng da ngay bari ngoy dem di lek yap xar di nan saw mu dagan lol ñu nan ataya ak kafe bu nopi tudd yalla fuñ toll waye ñu ñu jëlé li ñoo xamné sénégalais bo xamné ne munta wax ben ci yi sénégalais yi wax tubaab rek ñu dem jëlé bar ak tagatal ma ñi té mo leen leen daaw leen toroxalon bobé ñoo xam ne xamuñu kuñ ci laaj ne ko boo xëyee loo jëkk a def danaan deelee cinq heures du matin su ma yewoo ba sëlm ba jël suma café danaa daw danaa daw su ma ñëwee ki dem entraîné ji tudd fi julli te ab julli lay doon tudd fi julli fenn yoon ak jàpp su añ jotee tusbaar jot ñu ne ko diggante après midi ak après midi lay def mu ne su ma jëlee sama déjeuner ba pare après déjeuner damay dem jël sama kolaat xawma lat la xawma li ñuy teg ci li bu lekkee ba noppi dem geste tuddul fenn julli tisbaar bu quatre heures jotee ba mu geste ba noppi geste mooy dallu nelaw tuuti wala tëdd tuuti bu cinq heures jotee ba nga xam ne julli son jot na bu ne tëdd ci ay nelaw dem sëlmu salat ay yéreem dem entraîné jiwaat tuddul fenn julli tisbaar takusan bala fa jóge jul timis weesu bu ñëwee bu defee li muy def ba noppi balaa lire journaux yi bay xool ay email am tëddaat jot ñu fay làmp yi mu telewaat ba bët set kañ lay julli waaye ba ñu yàlla naree dimbale dafa ñoo boole suñu mbokku jullit turki la ñu yónnee la ñu yónneel dañoo jaar si kaw ay yéefar di jàll rek mu nooy lool ndax am na ci koo xam ne saa bu ma saan def dara day génne farab Sëriñ Tuubaa di ko tiitaroo waaye Sëriñ Tuubaa jéppi ko lool ndax maam Cheikh Anta mas na am aw fasu course ñu ne ko fasu naar boo xam ne ab yahud la moo dëkk sa fas wa mu ne loolu sëriñ bi mag bi du ko seetaan sama waa du ko seetaan ñu ne ko ma ngay e, tëbal fasam wa de maanaam di ko dawal xel yu ndaw muy tëb ay ñag di tëb ay dégg yu ndaw di tëb ay garab yu ndaw ndax bëgg mu sawar mu ne bàyyi naa bàyyi naa sama fas wi ak sëriñ bi ci façonnaar bi ca ngoon jot bañ julatis ba noppi ñu yóbbu woon fas wa dellu si kenn ku nekk sëgg mu ne lu xew ñu ne ko ay la mu ne déedéet xamoon naa ne sama waaja du ma set du seetaan ay caaxaan te moo ne dawal course lu dagan la waaye lan ko jàppe mooy bu ñuy duñ ba duñ jil takusan mën nañu ba jul timis wala mën nañ ko julle guddee julli lool té señ touba mo waxoon ne lépp loo xam dañ makoy koy buñ ta faté waxtu buñ ko bolé ci mom kon su fekkee dañu bëgg tankal nit ñi ci football bi at mu jot ñu jël ci xaalisu murid yak tijaan yak khadir yak layen yak ñépp def ca ta bëgguñ ko te duñu leen ci neexal te ku ci yàq ku ci defar lañ ci nee mënuñu fay jëlee ñi yàq kufi munte jële ñi yak nak bu ñuy lim ñi yak mëno ca génnaale su ko defé kon julit yi war nañ ca bàyyi xel nañ ca bàyyi xel nak man raa minkum munkar munkaran fal yughayyirhu bi yadi graw état bi am dal ne mënu ñu fay jële ñi yak fa in lam yastati fa bi lisaanu ñu reetaat ko fa in lam yastati fa bi khalbu moy su football amatay ki télé bi benn murit bañ ko sétal bañ a dagg sa liggéey di ko seetaani ci kersa rek nga ciy jële bañ a taal sa courant di fay courant bu bari di bañ a ubbi sa kër sàcc di dugg ndax am na dëkk yoo xam ne benn télé moo fi am ñëpp sa salloo fa bu ñuy dem sàcc la fa nekkoon yóbbaale ko léeg-léeg ñu bëgg génn ci mbedd mi kuñ tasali moo jaay caaf sax ñu siif caaf la sànni ko duñ ko duñ ko yéey waaye dañ koy sànni su dee jaay pain au lait ñu jël ko dëggaate ko ndax mbégte loolu jumaa am na lu mu wax waaye ku ne ci këram te am courant bu muy taal sañ naa coupé courant yi ñu bañ ko faa seetaane mu tëj kër ga denc caabeem kenn bañ a génn seetaane ko fenn ndax ñi leen di topp saa su nekk yëkkati ay wagg rek la ñuy mën oo oo rek lañu koy dégg ndax ndax ñàkk jomm sénégalais boo xam ne doo lekk cere doo lekk laaxu doo lekk ñalang doo lekk laaxu caaxaan doo naan ci ndaa kooku fi mu jële doole moo tax saa bu ñu taseeg africain yi nga xam ne bu ñu naan ay wattu la ñuy yor di lekk ay ay di lekk pat iñaam ak ak mboq lañuy boole ak sëb def ci kànja ak diwug tiir moo tax lu ñuy xëccoo ci wax moom ñun mën nañoo gañe Sénégal mën naa gañe lépp loo xam ne dañuy wax rek wala dañ koy bind mu bind mu neex a jàng bay boo nga woo Sénégal yaay gañe bay boo nga bay boo nga faral ko waaye lépp loo xam ne dañ koy xëccoo ci jom ak ñaq te kattan di ko def bay boo nga bàyyi Sénégal day ñàkk